waaw ñu ngi leen di fay bu baax a baax. waaw bés bi tey bu ñu nuyoo Sénégalais yi. di sant yàlla di julli ci sunuy ñaari waajur ñu ngi sant Sénégal yëpp woote bi li ko waral jàmm la rek ak salaam waaw jàmm la ak salaam te d'ici une heure de temps yéen ñëpp kuy dem di nga am li nga yóbbaale te kuy dem di nga xam ne ndekete géwal moo une inspiration waaw dinañ grève duñu taal nous duñu nous, pono nous wax lu ñaaw duñu dox doxu ñaxtu mais ko def ci anam bu yiw ak bu nous ndax ne dañ nous chez vous mais nous restez triba euh, nuñ koy nous allah ah ñuyu nous, qui nous président de la république di di ko nuyu di

man la Ousseyn Mbaye Macky Sall de français la doon wax. doo ma dimbali ngir yàlla wax ma li mu doon wax ci olof. bàyyi na géwél yi ñu tëgg wala bàyyiwu leen. mu indi coow. kon looloy wane ne géwél ñun ay auteur de voix lañ. lu nu wax àdduna dégg ko xam nga loolu lu ko waral. respecter sa liggéey fonk sa bopp bëgg sa bopp fonk say mbokk. géwél bu bëggul mbokkam doo géwél tey képp kuy géwél jàjj ak sa wuyu si nañ ñuy ñaan monsieur le président nga dimbali ñu rek ñu dem continuer suñu liggéey ci jàmm ak ci salaam li ñuy grève nag Secka wax na ko mbay si wax na ko du taali pëna du sànni xeer du baare tali di ngeen ko gis léegi léegi léegi en direct sur la DSTV képp ku bëgg gis affaire bi kot ñu léegi 2S en direct ci yeneen i feem asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu